jërëjëf ci question bi nga ma laaj lu am solo nga lu nga wax xam nga parti bi ma bokk muy passif ndëbatuwuma lu ma gëm la sama première invitation fi fii loolu laa fi ñëwee woon. dëgg de mais dama ne la ñun Sénégal la ñuy liggéeyal ñun Sénégal la ñuy liggéeyal dinaa la wax benn affaire pour dinaa la ko wax pour nga jàpp loolu man Massar. képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci ñu jox la ay ndomba tànk ci réew mii bis boo defee loo warta def ma doon la parce que du intérêt mooy tax man sama intérêt personnel may xañ peuple kooku bu ma ko defee wor naa comme li ma doon xeex anamu comme man la ma bëgg man ci réew mi anamu du noonu. mais ànd nga si Ousmane Sonko andi Jean-Luc Mélenchon fii muy wax waxu góor jigéen ànd nga si. non domaine boobu du ma ci dugg. ah mais Pastef la non. <laughs> non du ma dugg ci xam nga. ah mais Pastef la de. waaw non domaine boobu du ma ah, lu tax. xam nga lu tax. ah ragal. non du ma dugg ci domaine boobu. Ah. parce que l'essentiel yow xam naa ni pour nga laaj ma loolu xam naa dina ma ko laaj mais du ma dugg ci domaine boobu. ayca nañ dugg ci géej gi waxtaanee géej gi ak yi kon.